tey ñu ngi fii ci CICES bés bu màgg boo xam ne que sargal la Seydina Bilal Ibn Rabah bi nga xam ne que mu jëkk a nekk noddukat lislaam doon xarit doon àndandoo doon euh, bu sang bu tedd sallallahu alayhi wa sallam wax ci Seydina Bilal nag lu war la ñun askanu ni ku ñuul ak askanu Afrique buñ ko yëkkatul raayam yëkkatul martaba kenn du ko def moo tax te ñu daje fii di waxtaan ci dundaam nekkoon na koo xam ne que nag jege woon na yonent bi lool boo amee ñaar fukki at ak ñeent boobu yonent bu wootu woon la tàmbali woon def leen tax moom eh, nekk ci ndigalam ñu nekk ñoo xam ne que alis moo leen boole. Eh, am na xisa boo xam ne que laaj na ñu koy fàttali jullit yi fajar gu jot salaatu dañu ne asalaatu xayril minal nawmi asalaatu xayril minal nawmi jullit bu ko dégg boo nekkee ci la da ngay jug dem julli ji waaye loolu nag xisa boobu fu mu jugee mooy Seyna Bilal Ibn Rabah moo xëy bës dafa tàmmoon bu yeewoo dem ànd ak sang bi sallallahu alayhi Euh, dem jàkka ja waaye bés mu ñëw fekk sang bu biddanti ndax te yonent nee na boo leen ma jàppee lu ëpp nit nitam a gën leen jàppee lu yées nit nitam a man doomu aadama laa yàllaa ma yónnee waaye doomu aadama laa foofu yàlla dafa bëggoon jàngale ne euh, doomu aadama rek mu ñëw laaj soxna Aïcha ana sang bi mu ne ah, moom de dafa fóot mu ne ko bu yeewoo nga ne ko asalaatu xayru dem jàkka ja ba sang ba yeewoo mu laaj soxna Aïcha ba kenn seet su ma fi mu a ah kay Seydina Bilal lan la wax mu ne soo yow moo wax ne asalaatu xaaliban la mi jamono ñu toll fii Sénégal de am na ñu bari ñoo xam ne que dañuy toog ak seen sëriñ mais waxtu julli bu jotee duñ ko ne jógal julli dañuy toog ba waxtu bi weesu waaye moom mi nga xam ne que dafa ànd ak moom dafa ànd ak moom ngir dëgg moo tax yonent bi woo mbooloo yëpp nee leen bu lii Bilal wax nii yokk leen ko ci nodd gi moo tax fajar googu asalaatu xaaliban bi si Seydina Bilal la jóge ci yonent bi la ko jëkk a wax. dañ ko fas yéene sargal màggal. ci ben bërepp bo xamne ne dañ ko fas def fële ci ca Jamñaajo ci 20 hectares moy ben jumaa bo xamne ne juróom ben fukki junni taxaway lay jël euh ak ben daara bu tuddé université islamique Seyna Bilal bu fukki juni étudiant ak ben centre de conférence bu euh juroom juni taxaway euh ak dalwa yu bari ndaxte dañu gis ne xale yu bari dañuy jóge fii dem di jàng ji Égypte di jàng ji marok di jàng ji Koweït am na jamono ñu ku bëggoon jàng da dem France waaye année cinquante ñu indi université Dakar ñu nekk ci Sénégal ak ñu nekk sous région bi ñoo fi jàngee bon dafa jot nag eh, xale yi ñu bañ mënuñu bañ a dem mais ñu wàññi dem jàng bitim réew ndaxte xam-xam baa ngi fi mais dalwaay bi moo fa amul.